amuñu temps pour di len wax kenn ku ci nekk seen tour mais dina len wax ni ni ma ngi sama ndijoor mumadou Lamine Fane ki ci top muy jigen machallah ki nga xamni gis ngeen mourayam jek na mu di soxna Nogay Diagne ki ci top aussi di sama doomu baay mu di Mamadou Samb ak aussi sama càmmoñ ma ngi am Fatou Bintou jexate kon yene ko degando batay ñu ngi suñu émission Barada ak Kaas am nañ fi nak tammi pertinent donc ci lolu damay wax Mamadou Lamine euh, Fane Euh, question bi nga xam ni moo di émancipation de la femme. jërëjëf monsieur Abdoulaye Sambou mhm. di amaan mbégte beneen yoon di nuyu ñi nga xamante ne ñoom ñoo ñuy suivre ci Sénégal TV mhm. waaye di nuyu tamit sama mbokk chroniqueur yi nga xamante ne ñoom laa fas yéene bokk ak moom plateau bi ñu fas yéene tamit euh, traité sujet boo xamante ne wala thème boo xamante ne mhm. mun naa ne thème bu am solo la am solo la macha allah jërëjëf donc ci loolu dama lay poser question rek mu di loo xam ci émancipation de la femme jërëjëf monsieur Abdoulaye jamono dafa nek lo xamantene tay buy dox war nañ dox andak ak jamono mais à cause tamit ci biir communication am communication bi nan lay amé mhm. soxna ci tey borom këram mi ngi liggéey waaye moom tamit xam na ne borom këram mi ngi liggéey ba être am na lu mu bëggal boppam am na loo xamante ne tey mënu ko ñaan borom këram mais laata muy génn mm-hmm. di dem uti liggéey na communiqué communiqué bi nag du lenn mais na waxtaan ak borom këram ba ñu juboo si kàddu yaakaar naa jigéen góor nu mu amee droit liggéey noonu la jigéen amee droit liggéey mais si sabab nag ñu waxtaan ba borom këram bàyyi ko dëgg la macha allah kàddu yi rafet na ci loolu damay wax tam soxna Nogaye Diagne soxna Nogaye jaañ loo xalaat ci sa euh, Mamadou Lamine Sané sa naataangoo bi ñu fi toogal ci émancipation de la femme. jaajëf monsieur Samb. Mm-hmm. maa ngi nuyu ñi ma bokkal plateau bi di nuyu mbokku internet yi ñuy seetaan ci mm-hmm. Sénégal TV. Mm-hmm. maanaam tey dañuy waxtaanee émancipation. waaye li ñu war a njëkk a wax amaan tey mooy lan moo tax. jigéen jékki saay daal di taxaw ne day émancipé wu mm-hmm. la moo tax mu jékki saa jóge ci kër gi te waroon naa yem njaboot gi mu génn fa mm-hmm. dem di ci liggéey mm-hmm. kon yaa problème te problème bi nag du lenn lu dugut góor ñi nga xamante ne ñoo waroon nekk ci kër yi tey di yar yor soxna yi ak njaboot gi ñoo ko mëneetul

parce man pour man jigéen mm-hmm. jigéen dëgg dëgg dëgg dëgg mm-hmm. dafa war a toog ci kër mm-hmm. gi sàmm njaboot gi noonu la mën a jàppale borom kër gi parce que góor moo war a dem moo war a indi jigéen dafa war a toppatoo jéem a xool éducation xale yi man damaa paar man loolu mooy sama mooy expliqué sama macha allah rafet na soxna ba euh, Fatou Bintou Diakhaté euh, macha allah moom ngeen mu fàttali leen rek moom mooy soxna sa nga xam ne moom mooy dawal émission jéeg ci biir kërëm té da tay def yu am solo bu ngeen ko sétané donc soxna Fatou Bintou man damay faral di dégg ñu naan la femme est gardienne de la foyer xalé euh jigen dafa waru tok ci kër ga di saytu xalé yi pour jëkkëram di wuti ji di ñew ndax yow lo xam ci nga nekk sa biir kër sa jëkkër di xey nga jékki-jékki fii nii da nga bëgg liggéey lo xam si émancipation de la femme. moo sàmm mhm. maa lay nuyu. di mhm. nuyu sama xarit yi may baaxee tout le temps di toog ak ñoom jotaay. fay naa la ñuy seetaan. man Samb kenn lu ma takk di ma def gardien ci kër. man damay xëy dem liggéey. waa ndax man. Mhm. dama yàgg am lu ma rêvé am lu ma bëgg. ci bi may nekk sama ndey ak sama baay. tey dama ñaan yàlla dund boo dimbali sama yaay dimbali sama papa dimbali ñi ma nekkaat. mais tey tey liggéey bi ngay liggéey noonu defoo ko pour sa bopp da ko def pour sa sëy ndax tey ji boo ko amee foo ko yóbbu tey yaa ngi jur ay doom yaa ngi nekk sa jëkkër loolu ngay am di ko di ko liggéey si ñoom lay demaat tey ji góor bu naa la bul liggéey bul nangam naa fekk la ndax tey ji boo amee xaalis mu ko rob dina fexe ba roppat ko ci yow <laughs> waaw léegi nag mhm. imagine nga doon gardien ci kër mhm. di xëy di togg di yàq di sonn mhm. say ngay bu ko defee bu yàggee ñoom ñoo naan la ki ma yor dafa màggee léegi bu wàccee su su toggee ba pare su ma ñëwee du ma tal day nelaw rek il faut ma dem taxaar ku bees ñoo lay ñooy wax loolu il faut ñu jóg dem liggéey loolu mënuñu ko mënuñu ndax ñoom ñoo ñu koy imposer tey ji képp ku gis mu toog ci kër liggéeyu di toggoo ko yàq yi trop ñoom ñoo fi teel a am wujj ndax dañ naan wàccee du ma tal day sonn day xeeñ day def nii. imaginer loolu. day na waar day na waar. Ablaye may ma ci lu mu wax loolu tuuti. bismillah waaw dafa wax loo loo xamante ne c'est intéressant. intéressant lu mu wax nii dëgg la. mais man euh, d'accord ci lu mu wax. waaw loolu loolu damay damay liggéey nangam nangam mais dañ cee ëppal. ñu ngi ci def moo ëppal parce na na Moussa Ngom dafa wax ne mhm. waxuma na jigéen yi bañ a liggéey mais waxuma na nga liggéey di jaay sa jëkkër kii problème di ko jaay affaire. doy na comprendre nga. parce que ñoom si dañ ciy boole ay yoo xam bokku ci. bokku ci di ci di ci dañuy dem ba di ci noot seen borom kër yi. Mm. naan man la maa fi nekk mm. maay dogal maay fay courant maay nangam ak nangam. loolu nag ñoom nañ ci bàyyi xel parce que jëkkër jëkkër sang na ah. da ko war a topp topp baax a baax a baax daf ay bànnee xam. boo paree may la foofu. Mhm. tey dëgg la bisimilah. nit mhm. nit rek la. tey nit am na foo koy poussé. bu mhm. yàggee dafay sës. dafay sës waaw dëgg la ndax imagine sa jëkkër tout temps mu lay fat ci affaire yu mel noonu yaay wax ko ko mu def ko ci bopam respecté la am fum la tek mhm, ya may dégg nak amna na situation yu bari mom mo la ci guéné mais nak ko ci guéné ba paré mu guéné si ginaaw di yak sa der wala di wax leneen lu ci bokku c'est normal nga taxaw wax ko li fi nek li fi nekk effectivement lu am solo fi pou lay wax kon toujours soxna gay yow damay ñëwaat ci yow euh, la femme est gardienne de la foyer te yow bo sañon sa njaboot dang koy yar fam ko wara yaré yare bu guéné rek ñuni ni ah doom ja ndey ja mhm. léegi yow lo xam ci manam toog ci kër liggéey jàppale sa euh, jëkkër jaajëf monsieur Samb dama damay damay faral di wax naan sénégalais yi vision bi ñu am si mariage daa kaju ndax tey boo nee la femme elle est gardienne de la foyer léegi yow jàpp nga ne boo takkee soxna da nga ko war a indi ci kër gi mu war a nekk di a yàq ak a fóot ak a raxas te bu ñu delloo rek dans suñ delloo source ba jigéen bi nga takk bu ko tegee ci diine rek islam ñëwee ci kër gi warul raxas warul fóot warul bare da nga kaa war yow mi borom këram yaa ko war a wutal teg ko fa may ko mu àggale. loolu diine la boo ko xamulee nga dem revoir les livres. soxna bi nga takk indi ko ci kër gi. Mhm. yaa ko tous ses besoins. Mhm. muy liggéey yi mu war a def ci kër gi yaa war a wut nit. Mhm. di nga fay mu koy liggéey. kon soxna si nga takk indi ko ci kër gi. du du pour mu lay toogal añ ngay añ de. loolu sénégalais yu bëri dañ ko xam boo takkee soxna rek foog nga ne min nga dem wuti déedéet nga baal ma foofu déedéet nga baal ma foofu man jànguma de jànguma jànguma ay alxuraan dama laa teewlu léegi am na solo mu ngi dégg wax lu am solo xam nga maaxalaa li ñu naan li ñu naan ay aada aada dafay dem ba day dugg si dem ba nduróog nduróog dëgg wala wala mu nduróog diine te fekk du lool yaa gis kon li ma la wax sànq rek ki nga indi tey ci kër gi muy sa soxna kooku tous ses besoins yow la war xam nga yaa ngi wax sànq sa biir wax ne sax sax da ngaa daane sa bopp ndax boo nee sa soxna da lay fayal courant di la ko wax wala sa soxna di la fayal wax ko nit ko wax exception laa kii dafa ne kii dafa ne déglu dafa ne góor yi parce que man sama préférence la man damay préféré jigéen boo xam day toog di ma xoolal samay doom. waaw léegi d'accord di ma leen yaral. man kooku laa bëgg a dégg. mais a ah. dégg. mais liggéey waaw léegi naa li may ma may ma ko dégg naa donc nga baal ñu rek kàddu gi xaw na ñoo xel toujours. boo ma yeggee bu uh-huh. ne la. waaw dès l'instant où ngay góor di toog Ah. di xulle ba soxnaam di ko wutali lu mu ko fayaree courant dèjà dèjà wàcc na wàcc na yoon ah. léegi pour ah. terminer rek pour dëgg la mm-hmm. si nga indi ci kër gi am na lu mu war a def ci sa njaboot mm-hmm. moo leen war a yar waaye nag on ne peut pas ñëw ci kër gi war war a yar sa doom yor say njaboot war leen a yar te amoo loo xëy toggal leen ñu lekk soo amul da ngay génn wuti ko loolu moo indi émancipation bi la nga baal ma ci loolu sax est-ce que dem wuti ko boobu mm-hmm. du dem ba maanaam mu koy impacté impact bi bëgg xam conséquences le fait que yow yor sa euh, xey nga sa sa wuti ji dem na mm. yow nga da ngay ndax conséquence bëgg day am conséquence ndax yeru xalé des. pas. mais c'est un mal. c'est un may ma foofu may ma foofu ma ye may ma foofu ma yeggale ndax tey jii ñi nga gis xale yi nga gis ñuy màggaale di sàcc wala di dem di fekk yëfu jàmbur tege ñu jël ko lépp dañoo mu ba ñuy xale la woon ndax tey jii da ngay xëy imaginer xale amul dara amul lu mu lekk faaw mu génn dem wuti ko te fu ñu ko fekk daf koy jël looloo tax nit di màggaale dem ba toll benn âge bi mhm. mënatul téye loxoom ñu naan dafa feebar wala dafa am lu mu laal mu warta laal fekk na lu mu tàmm la sàcc bu mu tàmm ndax bi muy nekk xale mhm. yoruñu ko yoruñu ko ci loolu daal xam mhm. am lépp Uh-huh. mais tamit di nga ko am loo ko loo loo ko jox ñu waxante dëgg waaw te sa liggéey mënul téye ba doo mm-hmm. yar sa doom ndax tey boo dee liggéey di am loo xam ne yaa ngi leen mën a yóbbu ci école yu baax yi di leen mën di leen toppatoo loolu wuutewu yàqul dara say liggéey jërëjëf kàddu gi rafet na kon ba tey rek xam leen ni waxtu wi dañoo xoj kon ci loolu damay daal di bàyyi rek ci tënk rek Mouhamadou Lamine bi nga xam ne toog na déglu leen bu baax ci li ngeen wax lan mooy sa solution ci jigéen bi nga xam ne dafa nekk ci kër gi Eh, war a teewal pour manam mu liggéey ñëw indi ci kër gi koku lan la war a def jërëjëf monsieur sambu sank ba tay ma ngi bayyi sama mbokk yi nga xamantene ñom la bokkal plateau bi ñu développer mhm. mais ba xolé sen devel lu ñu rek mhm. mun na ni si sen démarrer rek la kenn ku nekk daano njëkkee ko sama collègue sama frère sambu uh-huh. parce que mom ñëw na am li nga xamantene mom la classé jigen uh-huh. automatiquement rek lolu rek mom da fay xawa tej affaire bi no xamantene uh-huh. du non kon ben côté tamit dina ka xawa dimbale parce que bu ñu ne couple mhm. dimbalante la sama gëm-gëm laa wax waaw mais ma yeggal gëm-gëm moo baaxul ndax da ngay déglu ñu leer la monopoliser monopoliser la ah, parole laisse sa gëm-gëm nga wax sa gëm-gëm nga wax mais tamit boo amee gëm-gëm boo xamante ne ah. teguwul ci xam-xam il foo ñu dajj ko tegee ko ne parce que waaw ba tey ci man dëgg la mhm. dëgg la mhm. parce que tey sa soxna nga yor ci biir kër gi yow yaa ngi dem benn côté mais xëy na boo mënatul mais moom war na dem si à gauche am lu mu la jàppale ah, mais malheureusement yow ni nga jàppee jigéen mm-hmm. da nga jàpp ko noo xamante ne da nga koy ñëw rek teg te loolu tamit wax dëgg yàlla du demee noonu beneen bi ma ñëw sama sœur Binta yaakaar naa moom tamit ba mu démarré rek mm-hmm. dane moom du mm-hmm. doon benn koo xamante ne dañ koy takk indi ko si kër gi tëj ko mais tamit il faut mu xam ne foofu tamit juum na parce que tamit nañ xam ne jigéen dañ ko takk am loo xamante ne moom moo ko moo ko war ci biir kër gi il faut mu xam ko laata muy génne toujours nga xam ne borom këram moo ko supérieur ah Mm-hmm. laata muy def dara mu tagg ko waxtaan ak moom balaa moo jël li nga xamante ne mooy ay responsabilité toujours da ngeen nekk ci suuf <laughs> góor nekk seen kaw kon foofu laa mën a analyser loo xamante ne si ñoom ñaar jaaru yoon mais pour wax solution comme temps bi daf ñoo xaw a xat dañuy delluwaat ci communication parce que ku jigéen ki lu muy def mm-hmm. dafa jóg pour dimbale borom këram borom këram xëy na xamu ko kon bu ñu communiqué woon ñoom ñaar kon du ñu réeroo mais malheureusement kii dafa jàpp ne kii bu génnee day dem am dara après mu osé ci kawam peut-être sax mu mujj jiite kër gi kii tamit mm-hmm. jàpp ne ne borom kër gi da ngay def jaam yu demee noonu uh-huh. sama wax ji dëgg dégg la laaj kon ci loolu ñu gisee doomu aadama foog nga am benn gëm-gëm bi uh-huh. nit ki man waxuma ne uh-huh. man dama ne sama préférence man lu ma préféré. Mm-hmm. koo xam ne toppatoo sama njaboot.